Modou rek la di am mbégte torop ci boole bi ngeen ma ci boole di wax ni lii moom euh, man duma xaar ku ma ci boole ndax Modou Lo ñun ñoo ko bokk mooy suñu Modou ñoo dëkk ak moom fii di suñu xarañ loo démb tey soog a ñëw kon nag ci lu mu nekk rek ñun ñu ngi ci ñu ngi koy gunge di ko accompagner di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko yóbbu ko ci komba bi ci jàmm mu jëleel ñu ci ndam bu rëy waaw ñun Modou loolu la ñu tàmmal ñun ñun Parcelles Assainies ndam rek victoire rek kon maa moom 100 pour cent bon kenn bi nag xaw na ma bett mais voilà maa ngi maa ngi maa ngi ko def sama contribution bu ko defee ngeen jëlal ma fulaar yi joxal ma ko xale yi. combat boo nga xam ne ay at a ñu di ko waaj kenn ku nekk di def li nga mën kenn ku nekk di wax li nga mën euh, war nañu xam ne ñoom gënuñu sénégalais yi yéen ñiy jóg tey organiser wu di wër ci mbedd yi di ko def pour Modou Lo Modou joxu leen añ joxu leen reer gënu leen day gënu leen bàyyi donc waru leen a gën a gore waru leen ko gën a gore également li valable pour Modou valable na également pour ki muy tasal tey muy Ama Baldé ñu xam ne làmb nag da ngay làmb rek mën ngaa daj mën ngaa bañ a daj ñoom ñaar bu ñu eggee fii tey c'est parce que dañ daan daan kon war nañ nangoo daanu tey c'est vrai kenn ku ci nekk bëgg nga daan mais kenn rek moo mën a daan ñaar ñi mënuñu daan ñu yemale ko ci cadre làmb respecter sénégalais yi respecter promoteur bi nga xam dafa jël alalam def ko ci. waaw ah, dama koy rafetlu déjà parce que sport la avant tout quoi day boole. te lii nii rek daf ko firnde parce que gis naa ay tët yoo xam ne gëj nañ gisante te peut-être activités yi moo tax dañuy dañuy juyoo daal mais lii nga xam ne facteur de rassemblement la rek dafa koy dama koy rafetlu déjà en plus dafay dimbali mbër mi dafay dimbali entourage am dafay motiver ñi ci nekk parce que dem rek tàllal ndoxo nit laaj ko yombul dafa jafe donc soo demee yóbbu benn symbole dina la alléger yow miy dem dama koy rafetlu di leen masawu coono parce que tamit yombul am na ñoo xam ne jot moo leen tënk bëgg nañ ko mais mënuñ ko mais ñoom ñu koy def rek dama leen di remarque dama leen di jaajëfal di leen remercier daf ma bett sax parce que xaaruma ko woon franchement maa ngi nekkoon si digg liggéey bi daf ma bett mais su ma ko yëgoon duñ ma woo man maay ñëw. Euh, toutes mes félicitations d'abord euh, si li ngeen xam ne mooy initiative bi ngeen def euh, jëmale ko suñu champion Modou Xarañ Lo di wax ne lii Parcelles ñun ñëpp la war ndax ne naa leen Parcelles asseni benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. te nag champion bu toll ni Modou Lo bu nekk fii au niveau des Parcelles Assainies sag la si ñun doomu Parcelles Assainies sag la si jeunesse bi nga xamante ne tey ñu ngi nekk fii au niveau des Parcelles Assainies di wane ne képp koo gis rek la ngay liggéey war nga si am pëseef ak xarañte ba tax ne boo nee maa ngi dëkk Parcelles rek ni ñi naw la ndax tey jii référence bi ñu njëkk def mooy son excellence le président de la République Macky Sall doomu parcelle bi nga xamante ne moom la jël sur le département de Dakar muy le premier ministre Amadou Ba muy doomu parcelle loolu rek ndam la si passé asini te xam ne noonu mu ko defee doomu parcelle du des ginnaaw